Elle est très belle rayonnante kooku du kenn ku Edou voilà <laughs> <laughs> nanu xaar rek suite bi dinañ ci xam dara. <laughs> alors dama lay bàyyi nga nuyoog ñi nga xamante ne ñooy internetu Sénégal 7 yëpp en tout cas c'est un plaisir tey ñu toog ak yow vraiment di jël ci yow ITV ndax. pratiquement bokkoo sax ci ñi nga xaman dañ leen di faral di gis lu bëri ci internet bi mais rek ça fait l'occasion tey ñu kontaan gis la fii nii. merci beaucoup d'abord maa ngi nuyu internet yi ñuy suivre yépp. Uh-huh. li la remercier pour ITV effectivement comme tu as dit amuñu habitude di ma gis lu bëri may def ay ITV et tout, ça c'est vrai mais aussi c'est un plaisir uh-huh. parce que des fois da ciy baax aussi nga jox nouvelle nit ñi ñuy suivre. tout à fait surtout que danga am ñu la bëgg ñoo xamante dañ lay safoo non seulement intelligence bi nga xamante ni yaa ngi koy doxee ak constance bi ak mën role bi mais tamit elle est très il faut la ah jëlal ma robbam. comme yow <laughs> aca mu nekk mu nekk nag plaisir comme ni ma ko waxee sànq mais tamit ñu gëñ laa gis torop euh, saison bi pratiquement li boo ci génnee tamit bariwul mais ñu bëggoon a xam absence boobu lan moo ko waral lool du dara nag xam nga man nekkul ni série bi rek laay def tout à fait y les études donc c'est pas évident d'aller léegi boo ci nekkee bëgg ci yokk tournage dafay compliqué loolu rek la woon mais léegi moom ñëwaat naa parce que comme gars yi ñëpp dañ ko doon laaj di réclamer sala sala sala sala mu ngi nii. <laughs> mais nan ngay dundee loolu ak yeneen gars yi dañ koy laaj nan ngay dundee actuellement vie de star. naturellement naturellement man changé wu ma dara changé wu. yaa jël car rapide ba moo car rapide nag jëlatuma ko. kon changé ko non wul parce que booy xool man d'habitude car daan ma ko jël sax su ma doon jàng lu bëri bus laa doon jël. mais après non jëlatuma ko parce que xam nga après rek nit ci bu la xamee c'est un peu compliqué boo jëlee bus nit ci tout le temps ñu ngi ñëw bëgg photo wu yow du gêne du gêne sax mais xam nga rek tout le temps ñu ngi ñëw. <laughs> fii lakkale la dem xam nga tout le temps nu ngi ñëw uh-huh. di waxtaan ak yow et tout ça uh-huh. après même nit yi ngay bokkal oto bi sax mën nañu gêné wu moo tax yaa ngi gis waa ISEG waaw maa ngi leen gis ndeysaan waaw foofu moom sama deuxième famille la sama kër la. <laughs> Euh, ndax produit nga ci ñoom mais aussi fierté nga tamit ci ñoom. Mm-hmm. nga nga góorgóorlu ba tey ji ñu bu ñu waxee série du ñu du ñu bàyyi sala si à féliciter en tout cas duñu la retenir de trop kontaan dañ mais mariage ka. merci beaucoup ah ci mu ngi ci loxo yàlla rek. Ah, am na ku fi nekk. waaw am na ku fi nekk ku wóor. <laughs> merci chérie. merci. bonne merci. c'est mon ami dugal na ma ci secte bi ba ba tàyyi ma bañ. wax naa leen ko dugal na ma ci. yow dugg nga pare yow xam nga ni dugg nga pare waaye sëñ ziar naa del euh, ci africain wax vraiment mu nice ah lu raar ah. merci beaucoup waaw man moo xam nga damay bëgg di varier sama style quoi bëgg ma di am benn style. chemise vax jëla daal <laughs> non vraiment nag star la star la quoi. Adja ñu ngi lay di kontaan bu baax vraiment bienvenue ci fi nga xamante ni mooy Sénégal 7 yow toujours damay ñëw di di am ak yow ay waxtaan ndax nag da ngay nekk nit ku baax. nit boo xamante ni même bu dul ak acteur ak actrice li nga xamante ni mooy série bi tamit. wax dëgg sekk nañ jàmm sekk nañ salaam nga nekk ku baax nag vraiment mais nag ñu namm la lool. mais maa leen raw maa leen raw lu bëri barki yàlla ma dem leen li ma leen rawee sax ëpp na. Sénégalais dañ laa namm. ma. ni ma ah, xam nga lu may laaj. ak boo ana soxna si. soxna si mu ngi fi. gisaguma ko. barke officiel mu ngi ci ñii ci côté bi nii rek. waaw li ko <laughs> ak Kalle mariage. waaw peut-être bientôt ah nañu ñaanalante rek mu neex. lu tax star yi nii nii buñ bëgg jabaar. non dañuy bëgg sax. mais day méttee am de. waaw ah, day méttee am méttee am lan moo ah, xam nga xale yi ñoom. ragal. ñëw ñëwuñu parce que xam nga dañ ñëw say si waaw xam nga ay problème de choix la quoi loolu gars yi def. est-ce que ah, ñun de pare nañ moom man mii nii pare naa rek. yéen ci boppam yéen bari la ba mënul leen a choisir <laughs> a. non même ku nekk ak rek mais quand am na ku mu bëgg koo xamante ni pare na pour marier ko. non amagul nag ndeysaan. franchement ah non ak boobu amagul xam nga pou xale yi. waaye yéen loo leen di xaar. eh loo leen di xaar. mais bon Nafi on est en pour parler ah ñu ngi xool ba saison dina am ou pas que on sait pas vraiment quoi. parce que à la base Nafi bu ñu koy def saison. taxul woon waaw taxul woon ñu koy ñu une saison parce que xam nga. temps ñu préparé troisième saison pour des maréchaux du coup après ça a boom les gens ont apprécié et tout. Mhm. mais voilà on est en de voir. ba xam mën na nekk ou pas donc rien n'est encore fixé nga marqué woon lool sànq sa empreinte ci série boobu noonu mais aussi nga marqué waat ko ci Pod et Marichou man secte bi dama koo nam dina ñëwaat wala démantelé nañ ko. secte secte bi démantelé nañ ko gisoo dañ ma ñaf prison. Hmm. gars yi prison lañ ma. prison métti na waat. xanaa gisoo ñu da ngaa gën a leer. non non en fait jëm a génn. Ah, génn génn naa. ku la génne. ay ñoomin xaw ma Samir xaw ma affaire yooyu affaire bu grave man xaw ma sa nu mu demee noonu billaay saison bii nii. la mais di nga génne maa galère am nga xaalis. waaw ma dara. sa doom ji ak Soña mais Soña di ko bàyyi ak moom. Soña Soña bàyyi. Soña maa koy rëbbi. bilaay di nga récupéré waat sa yow. Momo yow. Momo fii. ma <laughs> assez kontaan nañ tey lan lan moo ñu nar a xaar ci biir salle bi. waaw franchement vous aurez des des xam nga des soubassements affaire yi affaire daal dina def nii. honnêtement parce que xam nga waaw jël nañ suñu temps defar ko. Mhm. gars yi laaj nañu ko laaj ko laaj ko laaj ko mais on a pris notre temps de bien concocter la chose. Mhm. comme ça su génnee xam nga ñëpp kontaan quoi incha te bu soobee. ñu tous euh, Sénégal Sénégal 7 ñëpp ñu ngi leen di souhaiter bonne chance. merci beaucoup di la ñaanal ah kontaan nañ daal yow sama broda mais maa leen gën a kontaan maa leen ñaanal jàmm tam waa Sénégal al yàlla nañ fi yàgg te wér. Uh-huh. et puis voilà vive le, le les médias vive Sénégal 7 vive le Sénégal vive le cinéma. vive ak boobu vive le sec. merci beaucoup <laughs> déedéet. acca mi ngi noonu Pod et Marichou lañ wax waaye Eva ci la bokk ba tax tey mu ñëwee nii ci cérémonie d'ouverture bi tu es à tomber vraiment. non même pas gis naa la chat di leen nuyu bu baax waa Sénégal 7 euh, di leen wax tamit kontaan nañ ci seen teewaay. ñu ne ñu kontaan bu baax maquillage daal day discret <laughs> man bëgg naa maquillage bi. non damay def comme yow rek. non non non yow doo sama borom mais robe bi nice. même pas merci sa ba sa daax. <laughs> ayca tey nag muy cérémonie d'ouverture bi yaakaar naa ne ngeen waaj lu garaaw tey nar ñu ko wan n'est-ce pas ñu war koo seetaan mais aussi ñu namoon leen lool xam nga lool est que xam ngeen ne namoon nañ leen. ay waay koo leen namm xoolal koo leen namm namm na leen te ñu ñoo leen raw. macha allah lay njëkkee mais dafa mel na nëbbatu bi da ci doon nëbbatu di gën a jongo <laughs> Badou <laughs> non bàyyi ma jéem rek. non élégante d'ailleurs li macha allah elle est à tey nag comme niñ la koy waxee toujours rek euh, série bi mënuñoo wax Pod mënuñoo wax marie Marichou te duñu wax Eva parce que potentialité bi nga xamante ne mi ngi ciy demaale constance bi. boote bi moom dama koo teg ne macha allah laal naa bois mais euh, rôle bi aussi nga nga nga nga def ko réussir ko ba tey jii nii euh, lan nga ci mën a waxaat tuuti rek euh, ndax liggéey bu amul pression day tax da ngay mën a génne li nekk ci yow talent la wala loo xamante ni waa Marodi ñoom ñoo la ko permettre tey ba nga def ko. Euh, damay naan waa Marodi ñoo ñoo ñu ko jàngal parce que ñun ba ñuy dugg ci série bi ay xale yu ndaw lañu woon te jot ngeen ko gis gis ngeen première saison yi xamuñu woon dara et tout waa Marodi ñoo ñu jàngal ba tey ji ñu ngi nii voilà bu ñu sañee ne Eva wala Marichou lépp Marodi la donc amul amuñu lu dul def lu dul di leen di remercier uh-huh. voilà. ban annonce bi nag ñu gis lu Eva mosul def di yuuxu di yuuxu doom ji. <laughs> Eva de mi ngi noonu fu ne la. Maru dañ laa liggéey Maru Eva dañ laa liggéey. non mbëggeel rek <laughs> xam nga mbëggeel kon bëgg nga ke noonu tam. waa gis nga dama bàyyi pot dafa ma sonal. dañ <laughs> ko waxtaanee da ngaa bàyyi pot wala da ngaa bëgg a dund waa xoolal dama dama bëgg kii daal féexal sama xol daal. <laughs> en tout cas incha allah xam naa ne waa waajal ñu ñu baax duñ la fi téye bu bari euh, mais kontaan nañ bu baax ana monsieur. si monsieur mi ngi fi. maa ngi ci jàmm ngi si jàmm koy gérer waaw. waaw tuuti tuuti rek moom it mi ngi lay <laughs> nga xanaa gisoo. ok xam naa loolu. <laughs> alors kontaan naa c'est gentil. merci beaucoup et bonne. Stand by me. земля Stand by me, yeah, stand by me